حي على الصلاه alhamdulilahi rabil alamin walsalatu walsalaamu ala ashraf almursalin muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokki jullit yi ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di seede ni amul benn buur bu nu war a jaamu ci dëgg ko dut yàlla di seede ni muhammad alayhi salaatu wasalaam ndawal yàlla la te li ko yàlla yónni woon laata mu fi jógee mbottali na lépp doo ko dem ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ci ñu saxoo ragal yàlla subhaanahu wa taala ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem ali ibn abi talib radiallahu anhu dañ ko laaj lan mooy at taqwa muy ak ragal yàlla mu ni mooy alxawfu min al jalil nee na mooy nga ragal borom bi subhaanahu wa taala ci lépp loo xamante ni si luy tax nga am am meram la nga wattandiku ko def ay ndigalam bàyyi ay tëram mu ni naka noonu itam nga jëfee li nga xam ni mooy alquranul karim la ca nekk ci ay santaane nga jëfe ko laf ca nekk itam ci ay tere nga bàyyi ko mu ni li la yàlla sédd ci alal itam nga doy loo loola bañ wut loo xamante ni si riba di ca yokk mu ni ba ko ñeenteel mooy nga préparé bis bi nga xamante ni ca ngay génn àdduna war a jóge fii ci àdduna bi dem ca barzax mu ni loolu mooy ak ragal yàlla kon mi ngi ko tënk si ñeenti point yooyu ragal yàlla nag li fi muy gën a mooy nit ki fexe ba lépp loo xam ni lu yàlla xaraamal la nga wattandiku loola sori ko bañ koo jege bañ koo def moo tax abu xurayra radiallahu anhu biñ ko laajee lan mooy taqwa dafa ni waaj ji ki ko doon laaj mu ni ko ndax mas nga jaar ci aw yoon woo xam ni wu am ay dég la waaja ni ko waaw mu ni ko ba nga fa jaaree noo def mu ni ko su ma gisee dég daal moytu ko wala ma jéggi ko wala ma deltu ginnaaw mu ni ko loolu mooy ak ragal yàlla kon xamal ni saa yooy def mbir wala nga bëgg a wax mbir nee na su boobaa xalaatal li nga war a wax wala li nga bëgg a def ndax neex na yàlla wala neexul yàlla boo gisee ni neex na yàlla defal boo gisee ni neexul yàlla romb ko fa wala nga teggi ko wala nga deltu ginnaaw bañ koo def misaal boobu la ko jox kon ci ak ragal yàlla mu mel nii li tax borom bi subhaanahu wa taala farataal ci ñun koor mooy ngir ñu am loolu ñuy wax ak ragal yàlla te loolu li koy dëggal mooy li yàlla ci alquranul karim ni yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun nee na yéen ñi nga xam ni yéen a gëm yàlla farataal naa ci yéen koor ngir ngeen am ak ragal yàlla ndax bu la yàlla dimbalee ci koor gi nga xam ni weeru tàggatu la nga dugg ci yëg ni lu bëree bari loo xam ni yàlla daf la ko tere woon nga mënoon koo bàyyi nga nekkoon ci wante bi nga duggee ci koor gi nga gis ni ah, daanaka loola bàyyi nga lépp wala soo bàyyiwul lépp itam la gën a bëri bàyyi nga ko tàggatu boobee ngay am ci biir mu jural la ak ragal yàlla loolu mooy li nga xam ni moom la borom bi bëgg subhaanahu wa taala ci koor gi nga xam ni moom la farataal ci ñun nga xam ni su boobaa nit ki dafa yëg ni ndekete kat li ko yàlla tere woon ndekete lu ñu mën a bàyyi la mbokk yi ñu bokk yàlla ñoo xam ni euh, weer wi ñu nekk di weeru koor tey bu buñ ko xaajoon ñetti xaaj jàppal ni benn xaaj bi jàll na ba ñu dugg si ñaareelu xaaj bi te ñaareelu xaaj bi du yàgg dara ay fan yu néew nga génn ko dugg ci xaaj bu mujj bi muy ñetteelu xaaj bi te booba boo ci duggee rek mooy ni daanaka koor jeex na ndax yaa ngay préparé korité yaa ngay xalaat ci lu jëm ci wàllu kor yi kon jàppal ni fan yi nga xam ni mooy fan yu nekk ci digg bi muy ñaar euh, fukki fan yi nekk ci digg bi jàppal ni daanaka su jeexee rek koor gi jeex na su ko defee nag man an tant que jullit lan moo ma war foofu mooy woor naa fukki fan mu desee ma ñaar fukki fan léegi fukki fan yooyu ma woor ba mu jàll ba noppi léegi man ma xool sama bopp càmbar ana lan laa ci def ndax góor góoru naa ci ci jaamu yàlla ndax góor góorgóorlu naa ba lépp loo xamante ni ci lu ñu santale ci koor gi ci lu baax ci ci xeeti tuyaaba ndax def naa ko wala defuma ko wala ndax dama gàttañlu naa laaj sama bopp question yooyu ma jéem a xool bu fekkente ni gis naa ni kat man kat wax dëgg yàlla dama sàggan ci fukki fan yi nga xam ni moo jiitu ci koor gi nga xam ni euh, li ci ëpp dama ko nelaw wala li ci ëpp dama koo toj ci garam yi nekk ci ay débat yoo xam ni amul benn njariñ wala li ci ëpp dama toog rek nekk ci sama télé di ko seetaan wala ma nekk ci leneen te mu wóor la ni fukki fan yooyu jàll mënoo fexe ba mu dellu siwaat nga yëg ni yow perte nga lu bëree bëri yëg gi nga yëg ni perte nga nag nga yëg ni ba tey am na dese nga beneen occasion sa kanam te mooy dese nga ñaar fukki fan sa kanam bu ko defee loola nga góorgóorlu ca bu baax a baax ba xam ni occasion am na ba lépp loo xamante ne si loolu rëccoon la ci fan yu njëkk yu mujj yi nga góorgóorlu ba mu am ci ba def ko ci li nga xamante si moom moo la desee képp koo xamante ni yàlla baaxee na la ba nga nekkoon ci lu baax yaa ngi daan jàngal alxuraanul karim yaa ngi daan julli yaa ngi daan def lépp lu baax nga ñaan yàlla mu nangu la loola waaye nga jéem a góorlu ba gën a yokk loola ci li nga xamante ni moom moo la dese ci ci ci fan yooyu. kon képp koo xamante ni si sàgganoon na itam na tuub dellu ci yàlla te jéem a dabaatal te xam ni kat occasion bi mi ngi des ba léegi dañu xam ni itam mbir yi yëpp mi ngi ci mujj mujj mooy li am solo wante mbir mi commencé rek bër bër nga daal di jóg li ñuy wax naan. Euh, jóg jéginu gaynde wante dal darinu muus loolu ab julli da koy moytu ci loo xamante ni si ak jaamu yàlla la la ñuy bëgg ci jaamu yàlla jullit bi bu cay commencé mu commencé kemtaay kàttanam wante di góor góor lu fexe di yokk jaamu yàlla googee ndax jaamu yàlla lu mu gën a yokk ci nit ki dafay yokk ak ngëm yàllam wante lu mu gën a wàññeeku sa ngëm yàlla di gën a wàññeeku nga xam ni kon nit ki fii ak mi ngi def lu baax rek lu baax lu mu gën a bëri mi ngi mi ngi gën a dëgër ak ngëm yàllam digganteem ak boromam wante nu mu gën a sàggane ba wàññi ay topp yàllaam ak ngëm yàllaam dafay daal di wàññeeku. moo tax kon nañu góorgóorlu bu baax a baax comme niñ koy faral di seetloo ci jàkka yi léeg-léeg bi weeru jotee njaal bennu njëkk yi da ngay gis ni jàkka yi dafay fees dell ci naafila yi waaye bu ñëwee ba weeru koor wi xaaj da gis ni nit ñu bëri dootuñu ñëw naafila jàkka yi dafay daal di wét te li jaadu woon mooy bis bu nekk nit ki di gën a sawar am lu koy gën a motiver bu ko defee mu gën a góorgóorlu ba jàkka yi di gën a fees bu ko defee mu mën a am itam ci wàll ci xolam ak ngëm yàlla goo xam ni gu fees dell la kon nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax jéem a njëkkalante ndax weeru njëkkalante la ñu nekk wa fi dalika fal yatanafasil mutanafisun mbokk yi nañu góorgóorlu bu baax a baax te xam ni ñoo ngi ci ay bis yoo xam ni bis yu barkeel la ñoo ngi ci ay guddi yoo xamante ne si guddi yu guddi ngëneel la kon nañu tub bu baax a baax dellu ci borom bi subhanahu wa taala ñaan ko mu jéggal ñu suñu bakkaar te itam mu nangal ñu Euh, sunu jaamu yàlla muy julli yi muy koor yi muy lépp loo xamante ni si nit ki da koy def te mu am tuyaaba wala mu yaakaar ci tuyaaba yàlla nañ ci góorgóorlu lu baax a baax bu ko defee borom bi subhanahu wa taala man ñu bindal ay tuyaaba. yonent bi alayhi salaam day nekkoon na koo xam ni da daan góorgóorlu ci jaamu yàlla rawatina bu weeru koor jotee lu mu daan def ci jaamu yàlla da koy yokk dafay yokk lu baax lépp lu mu daan def ci jàngal quraanul karim ci ci saraxe ci jokk-bokk lépp loo xam ni luy may nit ki rek dafay góor góorgóorlu def ko ci weer wi ndax weer la woo xamante ni weeru promotion la lépp lu ci nit ki def ci lu baax dañ ko koy fulal wante lu mu ci def ci lu bon itam na ko woon ni loola ñu ko def itam dañ koy multiplier euh, lu bon la mu def. moo tax yonent saa salaam daf daan julli guddi ba nga xamante ni ay tànkam dafay newwi benn bis sunu yaay Aïcha radiyallahu anha ni ko waaw lii xanaa du yàlla moo ni jéggal na la say bakkaar yi jiitu ak yi mujj yépp mu ni ko waaw waaw su ma yàlla defalee loolu yépp ndax waruma koo sant waruma sant yàlla delloo njukkal yàlla kon loolu li muy wane mooy nit ki dafa war a góorgóorlu ci topp yàlla te xam ni yàlla bu la defalee xéewal la ngay delloo njukkal yàlla mooy nga sant yàlla te yàlla lañ koy sante mooy lim la sant nga nekk ca la mu la tere nga bàyyi ko mbokk yi ana ñu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam koo xam ni yàlla da koo jégal ay bàkkaaram yu njëkk ak yu mujj mu nekk di koo xam ni nitu aljanna la aljannaam leer ñun ñi nga xam ni sunu àjjana dara leeragu ci la moo tax ñu gàttañ lu lu tax lu ñu góor góorgóorlu kon nañu bàyyi xel bu baax a baax gën a góorgóorlu ci weer wi nga xam ne weeru fàggu tuyaaba la ñu góor góorgóorlu ci bu baax a baax mbokk yi fan yi ñu nekk muy fan yu njëkk fan yu euh, yu yu yi si digg bi ci weeru koor bi ay bis yoo xam ni ngëneel yu bëri yiw bari bëri moo ci nekk yàlla dana ci jéggal ay jaam dana ci tam gorale ay jaam ci sawara comme ni mu saxee ci xadis boo xam ni Abu Hurayra moo ko nettali mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na weeru koor bu jotee yàlla danay am ay nit ñu bëri ñoo xam ni daneen di goreel ci sawara te nee na loolu guddi gu guddi gu nekk la maanaam bi weeru koor wi teroo ba bi muy jeexee guddi gu ci nekk dana am ab lim bu bëree bari boo xam ni borom bi subhanahu wa dana leen goreel ci sawara yàlla nañ ci yàlla boole kon perte ñeel ki nga xamante ni weeru koor wi jeex na te màngu ko ay tuyaaba nekk ci ay caaxaan di nelaw wala bañ a woor wala nekk ci leneen ba nga xamante ni waxtu yi mu amoon yépp ci fàgg ko ci ay tuyaaba daf ko sàggane wala mu paase ko ci leneen loo xamante ni si du ko jural njëriñ ko ku la ko kon mbokk mi bul xeeb dara ci lu baax lépp loo gis loo xam ne lu baax la rek góorgóorlu ci nga fexe ba bañ koo yemale ci lenn na nga fexe ba lu ci nekk rek laal ca rawatina alquranul karim jàng ko bu baax a baax waxoon nañ ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam su weeru koor masaana jot jibril dana ñëw ci moom di nafaranteeg moom alquranul karim chaque weeru koor ba ci at mi nga xam ni ci la mujj woore at moomu jibril wàcc na ci moom ñaari yoon di nafaranteeg moom alquranul karim kon yow jullit bi na nga bàyyi xel bu baax a baax ci weeru koor yi nga xam ni weeru alquran la nga fexe ba jàng ci lu bëree bëri boo daan wàccee weer wu nekk benn kaamil lu gàtt gàtt na nga fexe ba góor góorgóorlu ba au moins weeru koor yi nga wàccee ci ñetti kaamil wala lu bon bon sax nga wàccee ci ñaari kaamil soo mënee lu ko ëpp nag moom mooy li gën. kon nañu fonk alquran yi ci weeru koor yi te xam ni yowmal qiyaam alquran dafa ñëw di ràmm ñi nga xam ni ñoo ko doon jàng sax ci xadis. yonent bi alayhi salaam ni weeru koor ak alquranul karim dañuy ramm jaam bi ëllëg yowmal qiyaam nee na koor dafay ñëw bu ñëwee ni yow yàlla yow sama boroom kii day maa ko tere woon lekk kii day maa ko bànneex ci bëccëgu weeru koor mu bàyyi loola yépp ma tere ko ko mu nangu ko bàyyi ko kon nag maa ngi lay ñaan nga tiit ci moom bu ko defee alxuraan tam jóg fële ni yàlla kii maa ko tere woon a nelaw guddi ndax danaan fanaanee julli da daan tëdd ba guddi mu jóg di la di ma jàng man alquranul karim wala même bu naafilawul sax mi ngi jóg guddi di jàng alquranul karim kon yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma cin ci moom bu ko defee yàlla daal di cin ci waajoojee kon loolu li muy tegtale ni mooy koor ci boppam lu am solo la wante alquran itam di ko jàng yitam lu am solo la rawatina ci weeru koor kon nañ góorgóorlu ci alquran yi bi jees mooy nanga nga góorgóorlu ci saraxe lépp loo man ci sarxa na nga ko def ci weeru koor yonent bi alayhi salaam nekkoon na koo xam ne ku tabe la woon wante weeru koor la gënoon a tabe lañuy misaal ak tabeem ci weeru koor ñu ni weeru koor su masaana jot dafa mel ni ki ngelaw luy rijji rek nga xam ne lu mu am da koy joxe ngir rek yëg li ci nekk ci ay tuyaaba mu bëgg loola tax muy góor góorgóorlu ci di saraxe mbokk yi na góor lu ci jokk bokk itam ndax jokk bokk bokk na ci li nga xam ni lu mu bëgg la subhanahu wa kon na nga lu baax ci lépp loo man ci jokk bokk nga jëm koo jokk ko mën a dem seeti na nga ko seeti koo mënta seeti itam ngir xëy na euh, fi nga nekk fi mu nekk sori yoona jëlal sa téléphone nga woo ko téléphone te yéene ca woo ba nga koy wokk ak jokk bokk yàlla bindal la tuyaaba mbokk yi na nga julli mooy na nga bëri looy naaf la ci weeru koor wi wante itam dee ci digle lu baax dee ci itam tere lu bon te itam képp koo gis muy sa mbokk jullit nga mën koo laaye biir ci lu baax na nga ko laaye biir ci ci lu baax mbokk mi ñu bokk jàll na nga góorgóor itam ci weeru koor wi ba sàkku ci xam-xam ndax xam sàkku xam-xam dafa bokk ci li nga xam ni ak jaamu yàlla la rawatina xam-xam boo xam ni xam bu jëm la ci euh, loo xam ni dafay defar sa sa diine sa jaamu yàlla buy defar sa pas-pas nga di ko sàkku te yàlla rek tax loolu itam na nga ci góorgóor bu baax a baax ndax yeneen yonent bi sa salaam dafay wax ni laa taxqiranna min al maarufi shay'a nee na lu lu lu lu baax aw yiw nee na bul ci xeeb dara mu ni donte la sax da ngay daje teg sa mbokk ubbil ko sa kanam ba nga xamante ni daf lay ñime gis ni yow mii kat ku baax nga yow mii kat tëjaloo kenn sa kanam da ngaa ubbi lépp sa kanam yonent saa sallam nee na loolu bul ko xeeb sa mbokku jullit nasalullaha taala an yataqabala siyaamana wa qiyaamana wa yuwaffiqana lima fihi alxayru wassalah wa yatuuba alayna wa yaj'alna min utaqaihi min anniran allahumma inna nasaluka al amna walsalama wal istiqrara fi baladina hada wa fi sairi bilad almuslimin ya rabb alalamin allahumma aidna min alfitan ma dahara minha wa ma batan برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله